عليك صلاة الله ثم السلام mbokk internet yi ñuy suivre partout dans le monde ñu ngi fii ak euh, kilifa gu màgg di muqaddam Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu gën koo xam si Cheikh Abdou Ndaw di muqaddamu cheikh imam Hassan Cissé tey ñu am ay waxtaan yu war a seq ak moom si lu jëm si actualité yi nga xam ne moo lëmbee àddina bi li si mel ni Covid gën koo xam ci coronavirus nga xam ne actualité la àddina bi yëpp la lëmbee sëriñ bi gannaaw bu ñu leen nuyoo li nga xam ne moo lëmbee àddina bi muy coronavirus bi jaaxal na àddina bi yëpp lan moo si sa solution boo xam ne dina tax euh, ñun ñëpp ñu mun a xaw a nekk si jàmm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi wax yàlla yàlla nañu yàlla musal ci musiba bi nga wax ba pare musal ci mboolem umma na Muhammad musal ci képp kuy doomu aadama ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan wala di déglu chaîne bi di ñaan yàlla buñ koy déglu yàlla na fekk ci nekk mu nekk ci jàmm te yàlla na nekk wax juy jëriñ mbooleem ñu koy déglu alxuraan mooy suñu référence ñun ñëpp lépp lu ñu wax rek wala lépp lu dal jaam bi référence bi toujours ci alxuraan la parce que alxuraan moo ñu wax maa naa bi kitaab min shay'in téere bi fàttewuñ dara bàyyiwuñ dara lépp a ci biir téere bi suñu sëriñ Mawlana Cheikh Imam Hassan Cissé dafa am ci benn côté bu nga xam ne ci mission bu ko bàyyi dénkoon ginnaaw jiite jumaa ji dafa am benn aaya bu nga xam da ko tegoon ci kanamam yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne képp ku yàq ci kaw suuf wala nga rey benn nit dafa mel ne rey nga humanité bi yëpp ma ne man ahyaa fa ka annama ahyaa naasi jamian képp ko ci dundal kenn dafa mel ne dundal nga humanité bi yëpp moo waroon imam au delà jàngale beeg yar nit ñeeg jiite nit ñi ci jumaa ji dafa ubbi woon clinique pour faj rek la tuddee ko sa shifaawul asxam turu benn téere ci téere Baay Ñas alxuraan nag dafay waxaat ba tey mu ne fas allu axla zikra <coughs> in kuntum laa taalamuuna laaj leen ñi nga xam ne ñoo xam mu fekkee xamu leen lii ñuy wax ni domaine médecin médecine la su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy faj médecins yi lañ préconiser ne lii buñ ko defee ñu ñëpp dinañ mucc yaakaar naa ñoom buñ demee ba wax ci àdduna bi yëpp ñu wax ko ci dëkk yëpp nan lañuy def pour mucc muy raxas loxo yi muy soriwante nuyoo yi muy daw rassemblement yi muy nàngam muy nàngam yooyu yëpp ñu teg te état yi d'accord ci parce que bokk na ci li ma neex ci li Macky Sall wax mu nekk feebar bi xamewut président xamewut baadoo la président yi sax ngi daw làqatu comme baadoo yi dañuy làqatoo président yi ngi làqatu parce que ku nekk mun na la dal parce que li nga xam ne kenn amagut faj bi te ñu ne nii lay wàllee jegante mooy tax ñu wàlle tisoo lii nangam nangam yi ñu ci wax yëpp médecins yi wax ko ci yaakaar naa mu ñu toppee prescription médicale li ñu joxe ñu ñëpp nañ mucc te yàlla ñu ko yàlla defal lislaam nag an nazaafatu minal iman la ñu waxoon set ci ngëm yàlla la bokk waaye na yegg nañ benn niveau bu nga xam ne ci proximité nit ñi dañ jege wante dëkkandoo yi jege wante kër yi jege wante ba am na lu ndaw bu dalee kenn rek amul sikki saaka ne bu dalee kër gi day dal quartier bi dalee quartier bi dal na dëkk bi buñ naan kon nañ moytu wante dañ na groupement yi nañ daw yenn yi nañ def nangam nañ def nangam pour man mesure médicale yooyu yi nga xam ne moom lañ préconiser état bi di ci rey boppam ñi confiné ñenn ñi tëj leen ci yenn quartier duñ génn wala ñu leen ci yenn dëkk duñ génn di ñu def leen benn fenn pour faj leen pour rek bañ affaire bi augmenter parce que plus nombre baa ngi augmenter ci ñu am plus ñu am kaaw ñu mën a wàll ñeneen ñi mais nag buñ limité ñi nga xam ne ñoo ko am ñu teg leen fenn rek ñu amuñ contact ñi nga xam ne amuñ ko mun nañ am chance génn ci yàlla ñu ci yàlla génnal te ñu xam ne tey képp ku fexe tey lu yoon ci yàlla ma solo waxoon mu ne ba ngeen déggee feebar bu wàll ci benn dëkk mu ne bu leen fa def muy benn ñaareel bi itam nekk ci dëkk bi nga xam ne feebar bi wàll am na fa mu ne bu leen fa jógee ngeen ñëw bu ngeen xoolee li daal Sénégal lépp dañ koo jëlee ci biti ñëw indi ko fi ñu ko am ñoo fa jógee ñëw indi ko fi waaye buñ toogoon ñoom fañ nekk baa ñun fii Sénégal mun na am lu ñu dal du ñu waaye nag yàlla programme woon na Sénégal dina ci jot wàlla moo tax ñu jotaale ji suñu wàll kon duñ mere ñooñu parce que li leen dal ñoom du ñoom ñoo ko teg seen bopp feebar buy wàll ñu ne day wàlle waaye ki nga fi njëkk indi moom fu mu ko jógee da ngay xam ne ci yàlla rek la parce que bu doon moom la ci boppam du ko am mais yàlla moo ko programmé ba mu agsi waaye bu ñu respecté les mesures d'hygiène bañ a jaay maa la gën a xam ñi nga xamul ñi nga xam bu ñu ko waxee da nga war a respecté loolu kon boo ñun lii ci état yi décidé en conformité ak médecins yi li ñu wax ñun loolu la ñu wax ñëpp nañ dëppoog loolu buñ ne nañ te nañ nañ toog siñ kër yi nañ toog siñ kër yi buñ ne nañu raxas suñ loxo nañu raxas suñ loxo buñ ne ñu nañ takk ay masque nañ takk ay masque parce que loolu du pour état bi du pour médecin yi mais ñun suñ bopp lañ te nag képp ku xam ne dañ la da sant nga bañ ko def lu la ci dal bu surtout bu mel nii bu la dal dafa mën da ngaa kon boog ñëpp ñu moytu des prescription yooyu ci gàttal ci côté boobu boobu loolu laa ci am ci tontu bi nga xam ne mun naa ko wax pour luy sauver doomu aadama yi comme ku ci sauver kenn nga mel ne sauver nga humanité bi kon ku ci kenn itam dafa mel ne lor nga humanité kon ko am faju jël déclaré ko ñu ñu metti la en quarantaine su ko defee yow nga dem def sa traitement nga baña a wàll ñeneen ñi parce que boo ko amee nëbbatu wàll ñeneen tey ñooñu tey ku ci dee dafa mel ne yaa ko rey yow tam bu ñu la teree ne fee bu fa dem parce que am nañu ko fa am soo fa demee ba mu dal la itam boo ci dee dafa mën a yaaxaru te alxuraan dafa wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp te yàlla ne na képp koo xaru ñu la ñu topp si topp recommandation yi ci te ci toppee ñu ngi ñaan ci barke yoon ci àlla Muhammad sa yàlla ñu yàlla muccal ñun ñëpp ci barke yoon ci àlla Muhammad sa barke alxuraan beneen question bi mooy li xew Euh, depuis barki dem mu nekk à jour ñëpp di ko wax dafa am ay avantages wala inconvénients yoo xam ne am na ci. waaw alhamdulilah ngeen may ñu buntu sax bu nga xam ne dañ ci mën a leeralal ñenn ñi parce que dañ nekk ci dëkk bu nga xam ne comme neex rek nga weddi sax doo xam wala nga weddi da ngay argumenté doo ko teg ci xam du hadiis du ay alxuraan da lay weddi rek parce que neex na la ki wax neexu la rek nga weddi. dañ ñoo wax ne am na benn awsa goro diw nekk Nigéria ku ñu xam moom moo gént gis yoon ci yàlla Muhammad saa salaam mu ne ko feebar bii di lëmbe de képp ku ubbi alxuraan di ko jàng sootu baqara ba sootu ali im sootul axraaf di nga fa fekk karaw boo ko xoojee naan ko bu fekkee ku ko am la yàlla dina la ko teggeel bu fekkee amoo ko yàlla mun na la ci musal ñun ñun imam asad mi ñu yar daf ñu yar ci benn jikko bu nga xam ne ñëpp war nañ ko jikko mooy ñu leen ñi innamal mu'minuuna ixwa jullit ñëpp ay mbokk lañ muy benn yonent ci Yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa mu ne xasalataane laysa fawqahumaa shay'un min al-xayri xusnu zanni billaahi wa xusnu zanni bi ibaadillaahi xasalataane laysa fawqahumaa shay'un min al-sharri suu zanni billaahi wa suu zanni bi ibaadillaahi yonent ci Yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam mu ne ñaari jikko dara gën ko féete kaw mooy rafet njort ci yàlla ak rafet njort ci jaamu yàlla yi mu benn jik ñaari jikko dara gën a ko yées mooy ñaaw njort ci yàlla ak ñaaw ñaaw njortu ci jaamu yàlla yi alxuraan mu ne baax ba'da zanni ismun ginnaaw njortu bàkkaar la ñun ñëpp kenn xamul bu la ko nit ki waxul ne gént na doo mën a xam ndax gént na ñun nit ki gëm nañ ne yoon ci àlla moom salaam moo wax mu ne man kazaba alayya mutaamidan falyatabawwa' mi mina naari képp ku ma mu man yónent ci àlla muhammad salaa salaam te nga tey ko xamal na jënd nga sa place ci safara yoon ci àlla salaam mu ne képp ko ma gis ci gént man nga gis ndax man iblis du jël sama melo su fekkee nag nit ki nga xam ne ñun xam nañ ko jullit la taalibe baay la muqaddam baay la ku ñëpp xam ci dëkk ba mu nekk bañ mun a propager wax ne moom moo ko xam moo ko gis ñu xam ne kooku lépp lu mu wax dëgg la suñ ci amee preuve ne ki ko wax man dama ne bu dul woon dara rek buñ ne papa Macky nee na moom dégg na ko ci nit ba mu wóolu noonu kooku waroon nañ ci bàyyi xel ñu ñëpp. ku toll na Papa Macky ñëpp xam ko ci àdduna bi fu mu nekk at gàmmul na fa bàyyi boole ko ci liste ñi nga xam ne boole na ko ci ne talabtukum fil ghaybi wa antumul awliyaa lillaah ba ma leen du sàkku ci yàlla dama ñaanoon yàlla ngeen nekk ay wàllu yàlla ci lettre ba mu bindoon ñoom imaam ba ñuy dem ba ñuy dem Égypte jàng ji Papa Macky suñ ko waxee ci rafet njort ba mu wax ne imaam moom la ñu yar te moom la jullit ñëpp war a am rafetal njort ku ci nekk ci sa moroom loolu sa waay wax nga gëm ko sax même bu dee sax am nga ci sikk sax parce bu dara amul nag lu dul yàlla afi laay shakku ndax ci yàlla war na am sikk sàkk si yàlla war na am sikk sàkk bu fekkee waajo war nga ko gëm su fekkee nag ko mën na sax papa ma rek man déggoon naa ko rek mu ne tey bunt bi ko fi romb sax dégg naa bunt bi ko fi romb sax mun nga mucc man dina ma jaral ma dem romb fa ku mel noonu nag bu fekkee sax bu du woon dara sax bokk sax ay taali baay ak nangam nangam mais jullit la rek jullit la rek ñun war nañ koo doyloo imaam Assane Cissé suñ sëriñ lu dañ nekk Nigéria ci problème mu vacciner xale yi contre la poliomyélite xale awsa yi di la fañ rek OMS def lu nekk awsa yi bañ a fayu ñun dégg ñu ne ay rumeur di circuler la ñu ne vaccin yi ñuy jox awsa yi foofu ku ko fa jëlee day tax limitation de naissances day tax kenn du amati jur kenn door du amati doom foofu aw Nigéria bañ ko waxee imam ñu ne ko bëgg nañ nga jàppale ñu ci xeex bu ñuy xeex Nigéria pour nit ñi vacciner seen doom yi imam ne mun naa ko imam dem Nigéria ba mu fa demee mu toog oote muqaddam yu mag yi ilimaan yu mag ñi ak buur yi mu wax leen ne leen kay ñii ñëw tey di leen wax ne proposé da ngeen vacciner seen doom yi pour seen njëriñ la parce que feebaru lafañ bi xale bu ñu deful vaccination bi te vaccination bi nga tokk ndox la ñu tokka ci gémmi na xale bi rek su ko xale bi naa ne lafañ muy poliomyélite du ko daal kon lii seen njëriñ la te dem nañ ba benn instant yi nga xam ne waa Màkka ne nañ ñenn ñi bu ñu deful yenn vaccination duñ dem kon yéen bu ngeen jëlul lii sax du ngeen amati porte d'entrée pour dugg mag kon góor góorgóorlu leen ngeen def ko ñoom ñëpp bañ dégloo imam xam position bi imam am ak raa bu ko bàyyi jox ci ci ci ci ci ci wasiyaam bi testament moom imam benn waaye mu ne imam ñun de ñun boo nañu woon sax lii def ko buñ ko defee sax dee wóor nañu buñ dee di ñu yóbbu àjjana wóolu giñ la wóolu ak bàññees wóolu gi mu la wóolu wóolu testament yi yow boo nañu woon naan leen ne buñ ko naanee sax day wóor nañu dañuy yóbbu àjjana ci leen imaam convaincre ba ñoom ñëpp ñu jël vaccination bi ci en 15 jours imaam wër Nigéria li tëwoon au moins en sept ans imaam def ko en deux semaines ci rafet njort bi gars yi rafet njort ci moom rafet njort waa Nigéria benn nit lañ rafet njort pour def ko xoolal organisation mondiale de la santé ak seen xaalis ak moyens yi ñu am yëpp jéem nañ convaincre ci publicité lu ne Nigéria ñu bañ en sept ans imam Assane Cissé waa awsa yi wóolu ko ndax xam nañ mooy kan rafet njot rafet njot dañuy rafet njot ci imam ñu indi seen doom yi ñoom Isaaxa Rabi yi ñoom ñoom ñoom Cheikh Tayiru Bouchi ñu ñu toqalal leen seen doom yi kii bi ñu wane ko ci télévision aw awsa yëpp doo ko dem nangu dem faj seen doom yi am na benn bés benn sëriñ dafa indi imam benn saafara imam yëg ci rek naan kenn ci suñu mbokk sëriñ bi ndeysaan bëgg ma turam mu ne imam daal moo rafet njot imam daal loo ko jox rek mu naan du jéem sax xalaat parce que imaam moom maqaamaam bi mu toll mooy rafet njort ci jàmm yàlla yi Baay si nag li mu wax moo gën a rëy sax bàyyi mu ne bët bu may xool doomu aadama nu ma ko bañ kon wóolu na ko ñun buñ déggee dara li nga xam ne boo boo jëlee karaw gi xooj ko naan ko du la du wàññi sa ngëm yàlla dara du tax nga du la teree nekk jullit du la teree nekk tijaan du la rey te mun na am lu waa ji wax mu nekk dëgg lan la lay wàññi lan la lay wàññi te li nga xam ne sax ñu bëri def nañ ko gis ko ñun de rafet nañ njott a jëriñ ak doo ko jëriñ du jëriñ ñun def nañ ko ku gëm wa man shaa fa yu'min wa man shaa fa yakfur comme neex nga gëm nga def comme neex nga weddi kenn mënu ci dara imam Assane sama sëriñ te ci loolu laay tëjee ci bunt bii ndax maa wax mu ne Abdou dara gënut lislaam dara gënut tariqa tijaan xam nga ñun ñu xam xam nañ lislaam lan la tekki ak tariqa bi nga yaakaar yaa ngi sant yàlla mun a taxawal mu wax la li tax mu ne parce saa yu la neexee nga dugg nekk jullit saa yu la neex nga bu la neex nga weddi génn comme neex nga nekk comme neex nga weddi sax nga nekk la ko dem nekkaat leneen mu ne parce que laa ikraha fi diin mu ne l'islam duñ kenn tarixa bi duñ ci forcer kenn du fekkee nag l'islam bi duñ ci forcer kenn leneen lu waaye def itam bu la neexee kenn du la ci forcer yow lay neex nga def wala yow ngay neex nga weddi rek mais na yow weddi ko ci sa bopp rek mais bul ne amul benn asas parce que kenn munta musa ka waane ba nettali sa gént ak nettali gént jaamur te nag ñaaw njott lu bon la ñaaw njott bàkkaar la parce que yonent bi moo ko wax dara gént a ñaaw ñaaw njot ci yàlla ak ñaaw njott ci jaamu yàlla yàlla na yàlla musal ci ñaaw njott ñun rafet na njott ci ñëpp moo tax yuñ am luñ dégg lu baax rek bëgg nañ communauté islamique bi yëpp jëriñoo ko humanité jëriñoo ko te lépp luñ ci namm rek mooy feebar bi yàlla fi jóge yàlla ni ko yàlla tàggaleek feebar bi lépp lu waaye xam lu baax lu war a mun a jëriñ tey war nañ ko mën a def Cheikh Assane daf ñu daan wax mu ne man daal jaaxle na mu ne tey tubaab yi ñoo fi indi médicament yi ñuy fajoo ñun wóolu nañ tubaab ba dañu wérante rek ndax tubaab garab yi baax na wala baaxul dañu jël rek naan parce que tubaab yi ñoo ñoo ko créé gëm nañ ne dafay faj muy benn mu ne ñaareel bi lii ñuy lekk ay corne bof yi ñu ñuy jaay ay biscuits yi ñu ñuy jaay ay poulet de chair yi ñuy jaay ñu jógee ci bitim réew jógee ci dëkk tubaab jógee Chine jógee fu ne mun ne ñun dañu ubbi rek lekk parce que lislaam moo ñu ne taamu aw la kitaab la ko lekk waa ñooñ téere dagan nañ ci ñun ñun lañuy wóolu ba ñëw rek ubbi lekk su fekkee na ñun ñoo mën a wóolu ñi nga xam ne duñu ay jullit seen ñam wóolu seen i boisson kooku ay ak ba yi ngeen xam yëpp dañuy ñëw rek ñun dañuy dajje rek naan su fekkee nag mun nañ wóolu ñooñu ñi nga xam ne bokku ñoo ñoom diine ci seen yof naka nag jullit bu ñëwee wax ñu lii lu pourquoi lan moo ñuy tere ñu gëm ko lan la ñuy wàññi ñu gëm ko lan moo fi jar sax polémique kum neex nga gëm kum neex nga weddi diw nee na gént na man toog naa fii nit nekk Louga gént benn gént ne ma imaam Assane nee na Mbaba gise la tudd du ko nëbb dama koy bugg pour ma dégg ko Mbaba ngi Louga man maa ngi fii man ma Abdou Ndoye imaam nee na boo bindee Yaasin def ko nangam ak nangam ak nangam nga def ko lii dina la teggeeku du ma nëbbatu de ba ma ko Mbaba waxee ma def ko ci ëllëg sa nit ñëw jox ma un million cinq cent mille man ne ko Mbaba gañ gént gi dëgg la parce que boobu loolu maa ngi ko war a jot mu tëba mu génte ko Louga ne ma imaam Assane ne na nga def nangam su ma fa nekkoon di sikki sàkk mbab naan ko li nga ma wax nii yaasin bii nga naan ma boo ko bindee mu biin bu ne nga def nangam ak nangam su ma fa nekkoon di sikki sàkk est ce que boobaa dinaa jot lekk ko jot beneen bi waat moom moom mbabba ci boppam mu géntaat benn gént benn siru mu ne Cheikh Abdou gént naa imaam mu ne benn siru da ngay bind sa tànk nangam nangam nangam nangam nangam nangam ma ne ko mbabba da ngaa xam siru bi mu ne ma déedéet ma ne ko xam naa ne xamoo ko ma ne ko man dëggal naa ne wóor na ma ne imaam Assane nga gis moo la ko jox kon lan la ma wàññi gëm gi ma gëm bu fekkee mbàmba mii laay gëm ndax lan parce que rafet naa njottu na jullit la gëm naa ne amul intérêt fenn ma ci gént parce que du ci gañe dara du ci gañe dara te ma def ko du ko du ko jëriñ moom ñàkk ko def du ko lor moom peut man mi mu ko gisal man lay wàññi imam Assane am na benn bés ñu invité ko benn ndaje Tunis invitation pour mu dem Tunis fa benn waxtaan benn aw sa ñëw ci tàkkusaan fekk ko ci mbaar bi ne ko imam mu mu ne ko gént naa sànq yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam na tekk di ko déglu mu ne ko invitation buñ la buñ la invité pour nga dem Tunisie mun ne ko nga danga fa dem njëriñ lu mag la ci lislaam imaam ne lan moo tax man du gëm aw sama parce que sama lettre d'invitation man kese maa ko jot man kese maa jot lettre ma ko jotee waxuma ko kenn mu ne kee xëllee fee ñëw ne ma yonent bi ne na ngan ngiñ lañ woote Tunisie nanga fa dem njëriñu lislaam la mu ne du ma gëm waa gëm naa ne waa ji li mu gis yonent Yàlla Muhammad la gëm ci côté bi itam loolu rek laa yem julli ñi ñu rafet jot nañu rafet njott ko ci ne rafet jot sa morom ñu bañ a def ay par par parlo tarixa boo def ay par parlo yi nga xam ne amul benn njëriñ ñun ñëpp ñoo bokk dara ku ci nekk bëgg nga wér yàlla nañu wér ñun ñëpp ku ci nekk bëgg nga mucc yàlla nañu mucc ñun ñëpp ku ci nekk bëgg nga xaalis yàlla nañu am xaalis ñun ñëpp ku ci nekk bëgg nga gudd fan yàlla nañu am gudd fan nga am ko sa morom am ko lu mu lay wàññi kan moo fi yéene sa morom mu am coronavirus kenn yéenoo ko sa morom kan ku ku sañoon tey ñëpp wér tey ñu ne tey feebar bi jeex na ndax tiit gu nit ñi nekk rek yàlla yàlla musal ci humanité bi ñëpp musal ci jullit ñi musal ci tijaan yi musal ci mboolem taale Baay ci barke Baay Ñas bu dee daal loolu rek lañ ci amoon lu ci wax ñu ngi jéggalu ñëpp nag su fekkee wax nañ ci leen li nga xam ne dafa heurté sensibilité kenn ñun ci rafet jot rek lañ ko tegoon. صلاة